waaw ñu nekk ak euh, coach su Thiatou Yoff coach ñu leen di. waaw ñu ngi leen di fay. tur bi naan euh, coach su Babacar Diagne. waay. alors su tey nga am combat capital indi sa poulain mu nekk ci dynamique bu baax am nga combat am te ni. combat noo ko yebee. non comme parce que combat bii du combat boo xamante ni sax. bon jël nañ ko au teg parce que Thiatou Yoff euh, bu ñëwee moo daan moo daan Zambala daan Sunjata xam nga ay moromam ñoo ko bañ a jël ñi mu bëgg bëgguñu ko. sama doomu ne sama xarit muy xale bu ndaw xam nga nekkoon ak rëg rëg bekk si nekkoon rëg rëg si man la nekkoon rëg rëg maa ko formé maa ko dool carte d'identité maa moom 4 ans liggéey moom yàlla dox mu ñibbi caaroy moom mi bëre naa rëg rëg mbapat si laa ko xamee si laa xamee rëg rëg si laa rëg rëg rëg man maa ko jox sëñ Modou Niang ko jox jour boobu pare entraînement à Yoff ñu daw dañoo daw yoof ba Pikine am combat boobu. dañuy sopp dañuy sopp. premier combat ba combat bi mu amee ak problème njaax affaire yu njaax boobu septième combat ci lañ tàggoo. di gërëm Abu. waa Clinton man maa ko yóbbu woon. bi yàgg non dara indil ko lu dul ko bon dem nañ ba benn moment man mënatuma ko def mënatuma ko wax ma ne comme que man yéen a am champion comme capitaine dina capitaine dina ak ñoom Tafa caatu yoof ma am ci moom yaakaar ñu dem ba ci biir Malick ñaa ñëw ñu def 100 pour cent yoof ma yore Malick muy nekk xoo xale xale boo xamante ni tamit depuis 2000 maa ngi Malick ba may nekk GIGN bon j'ai fait là-bas 4 ans bi ma jógee GIGN après laa ñëw dellu ASFA man mi jël naa 4 fois championnat d'Afrique wa def naa ASFA euh, Kodo laa nekkoon jógee Kodo ñëw ASFA. en quoi nga jël champion d'Afrique. Euh, kickboxing kickboxing waaw. alors ñu naan Malick physiquement parewul ngay tontu ci loolu. Malick Niang physiquement pare na si lépp mën naa laa woon ay vidéo yoo xamante ni moom caar yoof ñoo ko entraîné combat bi. 4 heures cinq la ñuy jug daw 4 kilomètres bu ñu ñëwee boole koog dune contact xam nga ñu bëri dañ maa mere parce que nee nañ booy bi li ma damaa wàññi poids am de trop mais damaa xam ne xale la xale bu ndaw même pas vingt vingt trois ans Malick xale bu ndaw la waaw mais Malick day ñëw bu ñëwee un bi benn béteelu citron nga bëgg ko naan daw ay kilomètres kilomètres ba pare day contact ak booy yi. Ah, moo waral jeexaay bi la moo waral jeexaay bi parce que amuñu combat. léegi nag nii la def léegi bu amee combat ñu ñu de def lu ñu war a def tous les côtés pas caar yoo pare nañu waaw combat tey bi dañ si pare pare nañ si bu yàgg mooy jour bi nga xamee ne jël nañ avance bi jour boobu la ñu xam la ñuy liggéey ñu xam tamit mbër mi li muy bëre xam ay capacité am xam ay déplacement am loolu mooy coach ñu ngi lay jërëjëf